al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak waa daara ji al ibaadatu wal xidma ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp docteur Fallou Kane di jiital ci ñëw bi sëriñ Xaadim di teg ci loxo bi sëriñ xabaar mu nuyu ñu suñu sëriñ si ci daara ji yëpp ak suñu mbokk docteur yi di rafetlu waxtaanu koor yi macha allah am na solo lool di baal àq ñëpp di leen baal àq ñëpp di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu suñu koor defal ñu saxaat suñu daara ji tey nag comme ni ko suñ xabaar waxee nii rek ñu ñëwoon doon dool jox suñu participation daal ci waxtaanu koor bi ñu jëmale ko ci suñu thème bi ñu indi ci cadre intoxication. bu ne intoxication nag xeeti tooke lay doon loo xamante ni si daanaka nit ki bu ko lekkee wala mu naan ko wala mu noyyi ko mën na ko indil ay njeexite mën na ko ni ay ay ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaramam moo tax tey ji ñu bëgg cee waxtaane rawatina xeeti intoxication yu bari na bari na lool wante des na ci jël lu mel ni intoxication alimentaire ci wàllu lekk ak euh, intoxication médicamenteuse yi nga xamante ni si jëm na ci wàllu garab yi ñuy naan. waaw comme ni ñu ko waxee ci début bi nii rek ñu jëmale ko ci intoxication alimentaire ci wàllu lekk mën na nekk lekk mën na nekk naan nga xamante ni si nit ki bu ko lekkee mën na indi ay jafe-jafe am ay manifestation yoo xamante ni si dina indi ay dina feeñ ci yaramam. Euh, loolu lu koy faral di indi li ci ëpp xeeti lekk yi ñuy lekk maanaam dafa am doomu jàngooro yu ci nekk doomu jàngoro yooyu mën nañoo produit ay toxine ay toxique yoo xamante ni si maanaam nit kii bu fekkente ni si lekk na lekk gi wala mu naan ko mun ni koy jafe-jafe ci doomu jàngoro lu mel ni ay bactéries ak lu mel ni ay virus lu mel ni ay champignon ak yenn substance chimique yoo xamante ni si maanaam day nekk ci xeetu lekk yi bu ko defee bu fekkente ni si euh, jël nañ lekk googu te ceytuñu ko càmbaruñu ko wala cet ga ca war sàggante bu ci amee rek mën na indi njeextit ci loolu ñuy wax euh, intoxication alimentaire ba léegi tamit des na ko faral di gis euh, ci yenn xew-xew yi lu mel ni ay ngénte wala événement yi nga xamante ni si yenn saa ah ñun ñi lekk lu mel ni na lekk dara wala naan dara bu ko defee ñoom ñëpp mu indil leen ay jafe-jafe ñu gën koo xam ci toxi infection alimentaire collective waaw kon donc dinañ faral di indi li nga xam ne moom moo koy euh, causé maanaam li nga xam ne moom moo koy waral ñu wax ko suñu kaw kàddu léegi muy bactérie virus champignon ak euh, yenn xeeti plante yi nga xam ne si dañ koy dagg duñ ko raxas duñ ko nettoyé wala dispositif yi ca war yëpp dus ko jël ba nga xam ne si loolu naan fagaroo gën faj faju daal kon loolu lépp tamit ci xeetu sàggante mi da ci xaw a nekk. facteur yi nga xamante ne si tamit euh, moo koy favoriser ñu gën ko xam ci facteur favorisant yi daanaka bu dee wàllu lekk yi ba léegi bu fekkente ne si respecté wuñu lekk yi ñuy lekk date de péremption yi vérifié ko wala ñu xool température de stockage am na aliments yu bare bëri yoo xamante ne si dafa am température yoo xam ne bu ko dépassé ah nit ki bu ko jëfandikoo mën na indi njeexteet ci moom wala ba léegi date de péremption yi ndaxte boo gisee léegi daanaka nit ñi ñu ci ëpp dañoo ñime yàlla ni man am alalu àdduna jaral na leen lu ne jaral na leen nit faat faat ci bakkanam wala nit euh, jëfandikoo ko ñu am ci alal ñu indi mu indi ay njeexital ci yéen ja waral na moo waral di nga seen nit ki di jaay yenn produit yoo xamante ne si daanaka produit yi périmé na wala du produit boo xamante ne si conservation ba ca war de nekku ca loolu lépp tamit dañ koy faral di gis ci marché yi bu ko defee def genre publicité yoo xamante ne si ah nit ñi mën nañ cee bàyyi xel wala ñu bëgg lu yomb yomb lu trop nii maanaam gis lii xamante ni si tamit ah, ca marché ba wala ca bitig ba mën na fa jar ay ñetti téeméer ñeenti téeméer nga seen nit sàmm lu baree bari di ko jaay naan li téeméer téeméer wala juróom fukk bu ko defee nga jël ci lu baree bari xañ ne vérifié date de péremption boobu bu dee lu mel ni ay pot mën nañ koo xoos naan la lii lii lii nangal promotion la promotion la loolu lépp pour jéem a nax ñi ba am seen xaalis bu ko defee yow mi koy jëfandikoo nag wala nga bëgg lu yomb sàggante mën na la cee dab ba intoxication boobu tamit mën na la indi njeexintal wala jural la loo xamante ni c'est wax dëgg yàlla tamit euh, euh, jaaran ko ci yoon wala nga jëlan say matukaay moom mooy ji moom mooy gën foofu comme ba léegi tamit dina am ci yenn xeeti euh, lekk yoo xamante ne si maanaam lu ñu koy wax ci rupture rupture de la chaîne du froid bu fekkente ne si kii nee nan aliment bi tamit warut a mën a génn frigo bi wala temps durée bi la ci kii nga génn ko exposé ko temps boo xamante si tamit dina Euh, permettre maanaam xeeti doomu jàngoro yooyu moo xam bactérie moo xam champignon moo xam virus ak yeneen ak yeneen yenn produit substance yi dem ba dugg ci ni infecté aliment boobu aliment boobu nit ko bu ko lekkee tamit bokk na ci li koy jural ci xeeti euh, jàngoro yooyu ñuy wax ñu gën ko xam ci xeeti intoxication alimentaire wala comme lu mel ni togg maanaam mauvaise cuisson des aliments maanaam comme par exemple togg bi ñuy togg jëluñu ko ma dese naa set wala togg gi ñorul wala tamit ki koy togg tamit euh, cet ga ca war wala euh, maanaam pastef ba ca war day des lu bare bari bokk na ci xeet yi nga xamante ni si day faral di euh, indi xeeti intoxication alimentaire yi wala nga jël lekk def ci frigo jikki jékki waaye nga génn lekk boobu décongé la ko toog ba mu yàgg nga congélaat ko loolu tamit taamuñ ko maanaam aliment boo ko décongelé ba pare tàmmuñu nga koy recongelé waat di ko dugalaat ci frigo comme loolu lépp daal vraiment euh, bokk na ci cause yi nga xamante ni si euh, dina ko faral di indi te ñu koy maytani ko baax a baax a baax ndaxte bu dee xeeti intoxication alimentaire yi li ci ëpp bu dalee nit ki bari na si ñoo xamante ni si moom lañ ci gën a ràññee euh, lu ci mel ni nit ki day am nausée maanaam xel mi di tey muy wàccu wala mu am. douleur abdominale ay crampe maanaam biir bi di metti wala nit ki di ñàkk ndox lu ci baree bari wala nit ki di sonn coono bu metti fatigue intense wala moom jaare biir bi daw ak fièvre euh, donc loolu manifestation yi mu ngi apparaître euh, durant nit ki bi mu jëlee lekk bi 24 heures ak 72 heures yi ci topp période boobu ci la signes yi di commencé di feeñ kon donc boo xamante si nit ki signes yooyu commencé na feeñ ni ah na dem ca hôpital kër docteur ba ko gën a jege prise en charge ba ca war des na ko def ndaxte moo xam degré euh, d'intoxication bi fu mu toll bu fekkente ni si nit ki day continuer di wàcc lu baree bare bare ak euh, biiram di daw nii maanaam lu ci baree bare am na fu muy toll tamit il faut ay soins yu intense euh, ñu jëm ko cee taxaw maanaam nit ki bu fekkente ni si dem na ba ñàkk ndox ñàkk ndox boobu mën na ko jural ay ay sëkkal wala ay jàngoor yoo xamante ni si mën na indi complication ci wér kon si yooyu à tout moment nit ki boo ko gisee ci yaramam li nga xamante ni si mooy li gën ah mu teel a dem kër docteur xam boo ko defee euh, faj ma ca war yëpp des na ko ci jël ba du am yenn complication léegi ñu ñëw ci intoxication médicamenteuse yi maanaam euh, li koy faral di indi jël quantité bu baree baree bari ci wàllu médicament euh, moo moo xam nit ki mu tay ko wala mu ñàkkoo tey ndaxte am na ci ñoo xamante ni si bon bu fekkente ni si dañu décider pour xaru loolu lépp ci xeetu volontaire la daal pour jéem a jël quantité yoo xamante ni si mën na leen a faagaagal yëpp bokk na ci cas intoxication yi xañ na bariwul mais dina faral di am euh, li ci ëpp nag xañ na ci xale yi wala personne age yi nga xamante ni si dañu jël seen garab te maanaam nañ koy nañ leen koy garab yu bare bare bare ten bu fekkente ni si yenn maladie chronique yi lu ci mel ne ay ay diabète wala lu mel ne ay tension wala lu mel ne xeeti antidépresseurs yi dëgg la ñu bindal ko garab yu baree bari mënta xàmmee garab yi jël di naan di naan tamit euh, mën na ko indi yenn intoxication médicamenteuse yi ba léegi tamit mën nekk ci xale yi tout tànk yi moo tax toujours dañuy faral di conseiller évite à la portée des enfants yenn médicament yi à tout moment tamit di ko denc foo xamante ni si xale du ci am accès di ci jot ndaxte lu mel ni siro wala mën nga ko te xale ñëw jël rek naan wala lu mel ni médicament du ci xam dara kon loolu lépp tamit euh, ñu jéem ci fagaru daal bu baax a baax ba xeeti médicament yooyu tamit xale yi duñ ci am accès waaw ndaxte loolu bari na ñi muy faral di daal mooy xale yi wala personne âgée yu ma doon wax xañ na duñ mën a xam di ràññee wala ñit ñi nga xamante ni si maanaam euh, dañuy jël yenn antidépresseurs yi mooy ñi nga xam dañu am wér ki euh, wér ki wér di xel kon donc ñooñu waruñu leen di bàyyi ñu jëlal seen i ñu jëlal seen bopp seen i garab maanaam képp koo xamante si am nga ci koo xamante si mi ngi jël garabu antidépresseur maanaam garab ko xamante ni si xel mi neexul ni li gën di ko jege wala waxtu woom ko war a jëlee nga poussé ko ni ko nii ak na le ndaxte koo xamante ni si xañ na xelam neexul tamit nga bàyyi ko noonu muy jël garab bu fekkente ni si mën na jël benn benn mën na jikki jékki rek soppe ko am ci moom mu jël juróom ba juróom benn te loolu lépp nekk loo xamante ni si li gën daal kon loolu lépp mesure de prudence da ci am solo trop waaw ndaxte boo gisee xeeti intoxication yi lu ci ëpp médicamenteuse yi ma doon wax manifestation yi day varier en fonction quantité bi nga xam ne si nit ki jël na ko bu fekkente ni si yenn saa yi seen xale bi jikki-jikka daa fo mu jikki bàyyi fo bi wala nga constaté xale bi di nelaw lu bari wala bu dee mag yu baree bari mën na ay ay crise convulsive wala état de choc manifestation yu bari sans départ ak type de médicament bi nga xam ne si quantité bi nga xam ne si nit ki jël na ko kon loolu lépp bu fekkente ni si am na li ci gën conféré ko ci hôpital ba gën a jege nii wala nga woote centre national antipoison mu jox la ay orientation premiers soins yi nga xamante ni si nit ki war na ko jëfandikoo balaa dara di xew waaw yenn saa yi bu fekkente ni si nit ki dafa inconscient maanaam xel mi jikki-jikki baa gi mel ni lu xam ni loolu lépp tamit ñu bàyyi di ci euh, jël euh, ay mesures sans autant que tamit maîtriser ñu ko lu bare bare ndax yenn saa yi day xam. nga jël di xëpp ndox wala leneen nag li gën nga woo sapeur bu fekkente ni si amoo accès ci médecin wala bu fekkente ni si amoo possibilité boo amee possibilité tamit nga jëm ko teel gaaw yóbbu hôpital ñu. def ca la ca war moom mooy gën wala nga téléphoné comme dinaa dugal numéro bi ci fin émission bi euh, centre national antipoison maanaam fii ci Dakar la nekk hôpital Fann euh, ci yooyu ci ci loolu lay yëngu yëpp toog yi nga xamante ne si nit ki toog yi nga xam nit ki dina ko jël mu indi ko ay gàllankoor tey jii boo leen wooyee wax leen tooke bi nii la ci jël li mën nañ la jox ay orientation le temps que yóbbu malade bi hôpital ba la gën a jege. waaw comme ni moo ko waxee nii rek daanaka manifestation yi intoxication médicamenteuse yi euh, li ci ëpp mi ngi dépendre ci nit ki quantité bi mu ci jël mais mu ci man di doon rek bu fekkante ni si am na nit ki exemple inconscient mu leen ni kii li cëpp daanaka yenn xeeti garab yi ñuy wax euh, euh, les benzodiazépines ak apparenté yenn xeeti neuroleptiques yi xeeti garab yi bopp yi daal li ci daanaka yooyu yenn saa yi dina faral di am nii. nit ki des fois mën na inconscient wala moom ay trouble convulsif di sayeeg di crise yooyu yëpp nii rawatina bu fekkente ni si nit ki dafay inconscient première soins yi ci gën nii euh, loolu ñuy wax libérer la kii les voies aériennes nit ki bu fekkente ni si sol na lu seere nga dindi ko bu fekkente ni si dàll la nga dindi ko ba ci cravate gi yëpp nga desserré ko ba nga xamante ni si dana am air quoi aération di ko commencé di upp nii maanaam mettre ko position latérale de sécurité bi ma doon wax nga woo médecin bi la gën a jege wala nga woo centre national antipoison bi wala sapeur pompier ñu jox la ay orientation moo gën tamit des fois ñu ciy jël suñuy responsabilité di jéem a xëcc fii di tëpp ndox ak def ay saafara yooyu yëpp tamit di yokk jéye ji waaw na mu gën a gaawee daal jëm ko yóbbu hôpital kër docteur gën a gën a jege ñu jël ci ay matukaay ya nga xamante ne si moom moo gën euh, bu fekkante ne si mën na nekk daal ñu bàyyi ci xel baax a baax a baax. ba léegi ñu ñëwaat ci euh, xeeti intoxication yi ndaxte bu fekkente ni si euh, par exemple nii am na xeeti traitement yu bare bëri bu fekkente ni si dem na hôpital ñu xool type d'intoxication am na ci yenn xeeti médicament yoo xam loolu naan antidote bu ne antidote xeeti produit la boo xamante ni si dina dimbali maanaam euh, médicament bi bu duggee ci yaram bi effet ba muy def da koy contre contrecarrer maanaam loolu mooy njëriñam du ko permettre mu àggale ruuram ba indi njeexteet ci biir yaram bi maanaam loolu naan day euh, contrecarrer effet pharmacocinétique bi nga xam ne si nit ki bu ko naanee ba nga xam ne si war na mën a fixer ci récepteurs yi bay def effet antidote boobu bu fekkente ni si nit ki jël na ko da koy contrecarrer du def effet boobu mën na ko dimbali bu ko defee ah lu baree baree bare tamit euh, mën na ko jàppale ci wér-gu-yaramam bari na ci xeeti euh, médicament yu bari yoo xam ne bu ñu dafa am antidote mais li gën daal teel a dem hôpital ñu identifier xool exactement bala mooy laal pronostic vital yi xool exactement bu fekkente ne si tuuse na yenn organes yi ban solution ak euh, ban précaution la ci médecin yi jël moom mooy gën ndaxte exemple lu ci nag yenn xeeti médicaments yi bu fekkee ñin le bi jël kan am na yenn antidote yi ñuy wax lu mel ni charbon activé dëgg la mën na kii dimbali lu bare bare bare nga xam absorption ba mu war a def war a àgg fenn benn niveau bi tamit mën na ko cee jàppale bañ ba ba ba mu bañ am benn effet bi. bu dee lu mel ni xeeti paracétamol yi mën na ci jël lu mel ni euh, antidote lu mel ni n yi ñu gën ko xam ci mist xeeti antidote la lu mel ni maanaam xeeti garab yi bopp yi lu mel ni benzodiazépine ak apparentine ni kooku. antidote yi nga xamante ne si dañ ko faral utiliser ñu gën ko ci xam euh, fili filimazenil anexat yooyu yëpp ay comprimés yoo xamante si wala bu dee xeeti euh, ay euh, morphine ay apparenté ay dérivés opiacés yi yooyu naloxone la ñuy faral di jëfandikoo mais li gën daal bala ñuy jël benn possibilité wala benn solution de fajal suñu bopp moom bu demee ba hôpital la ca war rek jéem a xool exactement ban solution la ñuy jël bu fekkante ne si euh, tamit affaire bi atteindre na benn niveau bi ñoom des na ci am yenn matukaay bu dee dañuy jël évacuateur ay épurateur yooyu yëpp pour jéem a xool tamit nuñ ko mën a éliminer waaw kon ba léegi ñu ñëw ci ba léegi yenn intoxication rawatina yenn produits caustiques yi ndax yenn saa yi dañoo contact ci wàllu ménage jigéen ñi di utiliser lu mel ay eau de javel ak euh, yenn produits yoo xamante ne si produit chimique la yenn saa yi mën na dem ba laal suñu bët yi wala comme li gën daanaka bu fekkente ne si touché na lu mel ni wàllu wàllu ci wàllu euh, cutané lu mel ni der bi wala bët yi kooku première soins yi li gën rinçage ki ki daal maanaam jël ndox mu baree baree bare au cedd lu mel ni bëri di ko ci trempé ni di ci trempé le temps que ngay dem voir ophtalmologue wala ngay dem ci soin bi la gën a jege ñu jël ci mesures yi ci war ni bu dee wàllu yaram tamit euh, lu mel ni ay malajo wala xeeti euh, produit caustique yooyu caustique yi ma doon wax nit ba léegi raxas ko bu baax a baax ak euh, ak savon moom mooy gën en attendant premier soin yi le temps que nga ko yóbbu hôpital xool bu fekkente ni si am na yeneen complication moom moo gën dañuy intoxication rek ñu ne ko naanal meew te xamuñu ne meew lu bare bëri tamit mën na indi ay jiyee ci doomu aadama bu fekkente ni si am na xeeti intoxication xamul ban la war a euh, lan lan la war a jël tamit nga xëy xëy rek di ko naan loo meew loolu tamit baaxul wala nga koy provoqué loo muy wàccu loo ndaxte bu dee yenn caustique yoo xamante ni si nit ki jël na ko tamit euh, taamuñu pour ñu wàcc ndaxte wàcc boobu muy wàccu ni mën na indi yeneen njeexte ci cër yi ci ci yenn organes yi kon loolu lépp ñu ci ñu bàyyi ci xel daal ba nit dara jot na ko nii rek nga ne ko jëlal meew naan wala ngeen ay solution li gën daal bu fekkente ni si am nga ci jaaxle amu lenn loo xamante ni si benn solution jéem la woote ci numéro bi may wax centre national poison moo xam nit ki dafa naan lu mel ni ay produits caustiques moo xam nit ki dafa. Euh, naan yenn médicaments yi ak quantité ba mu ca naan ak bu mu ci man di doon tamit nga woote foofu ñu jox la ay orientation le temps que ngay dem hôpital bu fekkee ne hôpital jigéewu la wala amoo accès directement pour nga dem nii. ndaxte am na yu mel ni xeeti sër yi tamit mën na ko jël nga fenn fu ne tamit boo laajee international kii centre national antipoison yi mën lañ jox orientation bu fekkee ne si garaawul a ah, mën nañ la ni defal nii defal na la jox la dispositif yo xamante ni si mën nga ko cee jël euh, du la indil yenn jafe-jafe yi euh, kon numéro bi contact mi ngi nekk hôpital Fann 33 825. 40 07 33 825 40 07 ak 77 657 30 15 77 657 30 15 kon donc loolu ñu ci bàyyi xel ñu ñëpp tamit xam ne am na centre boo xamante ni si loolu mooy rôlam lépp loo xamante ni si muy tooke jëm na ci population bi nit ki kii jëfandikoo ko amu ci solution directement da ngay woote foofu bu fekkee jaar na jege nga fii dem fu ñu jël police euh, dispositif yi ca waral ba ñoom ñëpp dañuy occupé ba ci wàllu nit koo xamante ne si maanaam jaan màtt na ko yooyu yëpp à exemple nii jéema a rey jaan boobu indi boobu ñu xool ba xam ban vaccin lañ koy mën a produire pour yàlla mën ci def jàmm bu dee ba ci xeeti wàcc tam bu fekkee na nga orienté nit ki mu nekk cas yu grave la nit ki bu dee wàcc jéem a la am ci wàcc boobu benn quantité bu ko defee boo ko yóbba boo ko yóbboo buñ ko analyser mas mën nañoo xam exactement ban toxique la ak ak degré bi fan la toll ni ndaxte analyse boobu yu bëree bëri xëy na mi ngi ci wàcc bi wala saw bi wala deret ji pour jéem a xam prise en charge ak euh, matukaay ya ca war yépp boo tamit ñun ñi mën nañ ko jël kon daal loolu lépp laa bëgg ñu bàyyi ci xel di den ci garab yi di ko maytandiku xale yi di ko di ci am accès di bàyyi tamit ñi nga xamante ni si maanaam seen wér-gu-yaram demul noonu ñuy jëlal seen bopp garab mooy ñi nga xamante ni si ñoom wér di xel di leen xaw a bàyyi xel bu baax a baax ndaxte ci askan yi la ci askan bi lan bokk. mën nga ko ñu ci bëree bëri mën nañ parce que tamit bu dee chaque instant tamit ñuy jël garab bu ko defee mën nga jàpp ni ñi xaw nañu wér nii rek bàyyi leen ak ñoom ñu jël ci ba jël loo xamante ne si mën na leen indil euh, ay jéy wala mën wala mu indi leen ay njeexte seen wér gu kon loolu daal vraiment tamit ñu bàyyi ko bu baax a baax a baax a baax a baax te bàyyi ci xel bu baax a baax di ziar ñëpp di jéggalu ñëpp jërë ngeen jëf. léegi fi ñuy jeexale daal ci conseil euh, wàllu consommation ndaxte ñi sant see jamonoy koor gi daanaka tamit lu jóg rek defe ne ni war ñoo mën a lekk ak sàlleen yeeg leen yeeg suñu mbokk bay comme ñooñ tamit dafa am solo trop comme weer bu weeru koor bi ak yenn xeeti événement yi bu ñëwee daanaka lépp lu jóg rek muy xam wàllu meew wala wàllu soow wala wàllu lekk yoo xam ne mi ngi jaar ci marché lu leen seen bay bët may rek defe na ni wax dëgg yàlla war nañ ko mën a jëfandikoo kon nag naam lu ñu bëgg lu yomb yomb tamit nañuy xool date de boobu ma doon wax xool ba xam boîte bi produit bi périmé na wala périmé wul ñuy maytandiku tamit maanaam di rompre ni ma ko waxee léegi euh, <coughs> la chaine du froid maanaam nit ki bu fekkente ne si garab bi euh, produit bi mi ngi ci euh, température boo xamante ni si moom la war a nekk mu génne ko ci lu yàgg di ko consommer tamit man ni indi ak njeexinteen ndaxte garab doomu jàngoro boobu mën na caa nekk wala mu produire loo xamante ni si boo ko lekkee mu indi ay jafe-jafe. waaw loolu lépp tamit dafa am solo ñuy sànni yenn pot yi nga xamante ne si boo ko duggee ci fri fri ki frigidaire nga ubbi ko nga seen pot bi pot bi bombé commencé di produire yenn bactéries a ah, loolu bu ko defee ngeen nattale baax naam baaxul tamit defe ne lii waruñu ko mën a sànni tamit consommer ko mu indi la ay jéyee tamit euh, ñu bàyyi ko bu baax a baax a baax di jiital maanaam loolu ñuy wax set ak cell moom mooy lépp nii ndaxte mooy base bi lépp li ñuy togg ñu jéem ko togg ba mu ñor xomm tamit di ci bàyyi xel ndaxte bu fekkee togg gi tamit euh, it cet ga ca war des na wala togguñu ko ba mu ñor tamit mën na indi ay jéyee bu dee tamit euh, yenn xeeti euh, maanaam fruit yi ñuy lekk nii bala ñu koy lekk ñu koy raxas ba mu set ndaxte am na ci yu bëree bëri yoo xamante ni si yenn champignon yi mën na ci ne mën nañu cee nekk nii nga lekk ko lekkaale ko wala ñu produir ci loo xamante ni si seeni i toxique la ah mu indi la ay jéyee wala yenn plante yi nga xam ne si dafa toxique du plante yëpp la ñuy war a lekk am na ñoo xam ne daanaka lu jóg mën nañ koo lekk tamit te loolu lépp tamit euh, mën na indi ba ci xeeti intoxication yi te xañ na bu dee plante toxique yooyu moom moo gën a dangereux moo gën a am moo gën a indi mooy mooy gën a gaaw indi yenn jéey yi daal kon loolu lépp ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax gën a prudent ci posologie yi ñuy jox suñu mag ñi di leen bàyyi xel gën a prudent ci suñu njaboot ki loolu lépp tamit bu dee wàllu médicament bi ak loolu lépp da ci am solo xool posologie bu baax a baax même bu fekkente ni si xañ ne médecin bi fàtte na def posologie bi nga jël temps xool ku la boo mënta lire nga xool ku la lire notice bi ndaxte garab bu ci ne am na notice xam niñ koy jëlee nga bàyyi ci xel bu baax a baax mais yenn saa yi nga xalaat ni rek lii nii nañ ko war a jëlee tamit fekk na nga xalaat ak la am bokkul tamit bokk na ci xeeti intoscation alimentaire yi intoscation médicamenteuse yi ma doon wax quoi waaw jërë ngeen def ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bi jaaxi Seydina Muhammad ci barke Cheikh Khadim jërë ngeen jëf. waaw salaamaaleykum sëñ Xabaan ñoo ngi ziar ñëpp daara ji al ibaad wal xidma docteur Fallou Kane si di ziar. sëriñ si ci daara ji yëpp di rafetlu liggéey bi di ziar docteur Ousmane Gueye docteur Ndiaye Diop di rafetlu taxawaayu docteur Ousmane am na solo macha allah suñu grand la suñu maître la xëy na ñoo ngi koy suivre ci lu bëree bare bëri di rafetlu engagement am ak détermination ak disponibilité am rawatina journée scientifique yi am temps yii passé te Touba assistance médicale organisé ko mu ñëwoon ci vraiment. def ca présentation bu am solo macha allah xañ na bëgg nañoo teew mais jamono yi lañu occupé mais finalement lépp mujj nañ ko suivre ci YouTube bi mi ngi ci di ko rafetlu bu baax a baax a baax di ko encouragé waaw sëñ Ousmane ko sëñ euh, xaban comme waa ji laaj ñi euh, maanaam ñam yi nga xam ne si congelé ko dindi ko congelé waat ko léegi ban solution lañ ci def boo gisee li tax naam ñu ni taamuwuñ ko xañ li gën bu fekkente ne si comme ay xeeti ndawal la nii ah, xool la nga xamante ne si yitte woon na ko mën na koy togg mu ber ko pari sam ni bu ko defee daanaka bu ko congelé bu génnee quantité ba ca soxla mu jël ko du pose problème euh, boo gisee xañ na li tax euh, ñu koy faral di bañ ni euh, am na yenn bactéries yoo xamante ne si maanaam dañu résistant dëgg la boo leen mettre ci yenn température yi dina bari yu dee mais am na yoo xamante ni si mën nañu nekk euh, mel ni lu endormir mel ni luy nelaw fekk ñu ngi dund ci biir ak température bi lu mu baa baa baa tamit mooy waral comme nit ki bu fekkante ni si décongelé na ko dindi na ko ci euh, frigo bi euh, teg ko tempéra température ambiante minimum dina am une heure deux heures voire trois heures de temps période boobu nag bactérie bi bu fekkente ni si dix la vingt minutes yu ne day multiplier wu gën a multiplier wu xam nga léegi bu ko defee. le temps que mu koy delloowaat ci kii mën na nekk ay junni junni junni junni bactéries bactéries léegi comme bu ko defee doomu jàngoro boobu bactérie boobu mooy doomu jàngoro bi may wax ni euh, bu ñam boobu nag maanaam bu ko dugalaatee continuer ko congeler ko le temps que muy jëlaat euh, temps pour ñam bi soog a congeler atteindre benn température boo xamante si bactérie bi dina mën nelaw mën na gën a yokk foofu bu ko defee. nit ki bu jëlaatee ñam boobu bu ko toggee maanaam togg ko benn température togg ko togg yàkkamti wala togg togg togg gaaw ni yooyu mën na indi yenn intoxication alimentaire yi ñuy wax te tamit boobaate du du du du li nekkul li gën moo waral des fois ñu ni am ñam yi ci ëpp boo ko génnee tamit euh, ba congelé ko ba pare taamuwuñ ko nga koy dugalaat ci frigo di ko kukki euh, di ko congelé di ko recongelé waat kon li gën xool quantité ba nga xam ne ni si mën nañ ko jëfandikoo mu séparé ko ay dagg-dagg ay morceau morceau dugal ko ba saabu bu yittewoo jël ko loolu lañ ci gën a taamu daal waaw ba léegi tamit euh, sëñ xaban euh, xabaan di laaj ni maanaam comme banaana ak nen buñ ko buñ buñ leen boole ko ba xam baax na baaxul ndaxte bari woon na ay études yoo xam ne yu bare bare bare bëri yoo xam ne ci réseau sociaux yi euh, yenn audio yi soit yi ñi jaaral ko ci whatsapp yi ñi jaaral ko ci facebook bi mais yu cëpp amul étude scientifique yu démontré ni association banaana ak nen poison la wala nit ki bu ko naanee fi sensé mën na ñàkk ba kanam waaw ndaxte lu bare bari xañ na loolu moo induire en erreur ba ñu bare bari indi explication di ko lancer seen di ko euh, ki envoyante ay message ndaxte boo xool euh, ñoom ñëpp constituant euh, banaana ak ak ak ak ak ak ak nen autant pour moi ndaxte boo xoolee boo jëlee lu mel ni banaana ay ferñeente moo ci nekk ak i euh, protéine lipide ak ndox yi cëpp ndox moo ci ëpp nag ak euh, complexe vitamine B nga jël lu mel ni nen tamit nga fekk te ndox ay lipide ay glucides cholestérol ak euh, yeneen ferñeente yu bare bare ay potassium calcium ay vitamin aussi kon donc kooku amul benn toxique boo xamante ni si mën nañ ko révéler wala donné scientifique à ma connaissance wane nañ ko wala revue bi révélé ki révélé ni kat toxique toxique bi mi ngi ci pomme bi wala toxique bi mi ngi ci banaan yi boo leen associé lii lay jur wala lii lay jur ndaxte ki ko révélé woon wax ko envoyante ko message ñu naan rey na fii rey na fii te donné scientifique moom du caaginu da ngay dégg dara rek ni livré la ndaxte lu mu ci man di doon day am maanaam référence ñu mën a fa am fu sukkandiku mu nekk étude yu leer boo remonté nga ne ah ñii kan ñoo def étude bi lii ak lële ñu soo koy admettre mu nekk lu officiel mais li ci ëpp daanaka bari na ci ay affirmation gratuite ñiy wax fale ñi la wax fale mais ama ma connaissance euh, li nga xamante ne si man gëstu naa ko ci ak li ma ci xam ni gisuma ci danger parce que dans la mesure bu fekkante ni si am na danger toujours di nga seen nit ñi ciy ñàkk seen bakkan bari na ndaxte di nga seen yu mel ni xew yi entrée bi ñun ñi lekk ay euh, xeeti lekk yoo xam ne day am leen yu bari ah boo paree nga teg ci say fruits say pomme ak say banana kon donc bu fekkente ne si am na danger foofu yaakaar naa kon chaque jour di nga dégg ay nit ñu bëree bari ñu ñàkk seen bakkan kon ñuy maytandiku di bàyyi xel ñuy bàyyi xel daal ci yenn fausse information yi ndaxte données scientifique moom wax dëgg yàlla amuñu sañ-sañ ni lii boo ko defee lii la te amul ñu fu ñu sukkandiku foo xam ne say études yu wér yu leer wane na ko moo waral amuñu sañ-sañ boobu daal waaw mbokk mi tamit euh, di laajte ni wàllu ki euh, petit pois maanaam day seen yu ñuy jaay yoo xamante ni si ci marché bi day leer ni lii daanaka varier na te tamit nit ñi dañ koy continuer jaay waa dëgg la am na ci xeeti lekk yoo xamante ni si nit ki mën na ko consommer maanaam mën nañoo ni date de de consommation bi kat fii la yem nga xamante ni si mën na ca teg weer yu bëri wala at yu bëri di ko consommer du ko indi benn complication sans problème lu ci mel ni yenn xeeti farine ak euh, lu mel ni ceeb ak i pâtes ak i lentilles haricots ndaxte boo jëlee ay petits pois je pense que ay euh, ci ay <laughs> famille haricots yi la bokk ni rek mooy yenn euh, légumes secs yi nga xamante ni si mën na lekk nekk lu yàgg yàgg nit ki di ko consommer lu mel ni tamit ay miskit ay kafe ay ataaya ba ci chocolat tamit euh, chocolat bu ne en poudre wala ak euh, nu mu tuddati euh, miel lu mel ni mel ki lem lem moom daanaka mën na dund lu bëree bari at yu bëree bëri doom benn post doom benn ki même bu amee changement yëpp tamit boo ko tëjee fermer ko tamit daanaka du varier du def dara amul benn danger bu ci nekk ak suukar ak yi ay xorom ak yooyu daal. yi nga xamante ni si daal moom mooy gaaw a périmé lu mel ni xeeti yi ñuy togg ay viande wala xeeti nen yooyu. dëgg la yooyu daanaka bu périmé wala yenn xeeti soow yi du yëpp sax parce que am na soow yoo xamante ne seen yaawur yi tamit mën na périmé te nga ay weer ay fan wala ay weer nit ku consommé ko tamit du am yenn danger quoi yenn ci yaawur yi. waaw ñu ngi dellu si di ziar bu baax a baax sëñ xabaan comme mbokk taali bi laaj ni maanaam kafeek meew comme consommé ko ba am yenn jafe-jafe yi muy indi. comme loolu lépp daanaka explication yi ma joxoon ci information ñu wax ne ay banaana ak euh, banaana ak nen boo ko dee boole lii ak lii ndaxte des fois version yi day bari lu bare bare bari nit ñi moom daanaka ñi nga xam ne ñooy joxe information yi ci wàllu santé sax te nekkuñ ci santé wala duñu ay scientifique boo xool jamono bi ñopp lool te toujours nga jékki-jékki ak ñu génne benn audio partage ko diw ba mu defee ni def ni def ni fekk du données yoo xam ne si du données yu fiable wala donne yoo xam ne du waaw ndaxte boo xool version yi wute na lu bare bare bëri yenn diététiciens yi ak nutritionniste nee nañ amul benn danger te tamit euh, la preuve nekk di nga seen ñoo xam ne daanaka ay at ngi nii wax dëgg yàlla ñu koy naan te amuñu benn jàngoro du ñàkk nag science moom day évoluer wala tout yu bees di ci ñëw ay innovation wala yeneen ak ay yeneen gëstu yoo xamante ni si tamit euh, amul limite daal ndaxte booy xool yenn ci euh, diététiciens yi ak nutritionniste ba léegi. Euh, tamit ñi mën nañ ci d'accord ñi tamit indi yeneen version yu différent autant pour moi léegi tax euh, boo jëlee ci cadre pharmacognosie lu mel ni xañ na café am na yenn ferñeent yu ñuy wax tan tanin xeeti euh, kii composant yu ne ci biir café la ni nee nan xañ na loolu day coaguler caséine du lait bu ko defee caséine boobu day commencé coaguler nag day xaw a yéex pour digérer ko bu ñëwee ba ci estomac bi day indi problème digestif ko defee daanaka pour que mu digérer wu day xaw a jafe mais nag données ak version la yu bari yoo xamante ni si wute na ci kaw yi gis-gis quoi mais du données yoo xamante ni si wax dëgg yàlla tamit euh, mën nañ ci sukkandiku ni ah lii tamit euh, article bi wane na ko wala lii démontré na ko ne euh, nii lay dem wala ne lay demal waaw comme daal loolu lañ ci mën a indi comme explication. waaw sëñ xaabaan ñu dellu si ko léegi mbokku taalibe bi wax ni comme yenn xeeti légumes yi wala yenn salade yi ñuy consommer avec produit yi ñu ciy def ba xam lu indi benn njeexital ci doomu aadama ci wér-gu-yaram ndaxte loolu lépp daanaka comme ni mu ko waxee ci euh, conseil rek lépp daanaka euh, fagaru daal mooy base bi fagaru mooy indi cet lépp lu ci mën di doon muy wàllu légume muy wàllu lépp loo mën a lekk tamit euh, na nga jiital raxas ba raxas ba mu set wecc indi ci ak cet ba mu mat ndaxte lu bare bari bu ko defee suñ borom mën na ci indi ay tawféex ndaxte bu dee xeeti yu mel ni plant yi wala produit yi dañ koy bay euh, ndaxte des fois yenn pesticides yi yenn xeeti engrais yi ciy def mën na nekk ay résidus ay yenn kii yu ndaw yoo xamante ni si xañ na euh, nit ki bu ko consommé te tamit nam ko war a nettoyé des na kooku tamit mën na indi ay mën na mën na ko indil ay jafe-jafe. waaw mais nag euh, dëgg la yenn ONG ak yenn organisation yi tamit dañu sukkandiku ci yenn norme yi nga xamante ni si dañuy traité yenn gara yenn kii yenn produits yi végétal yi ak yenn légumes yi ah normes yi ak normes yi ndaxte boo xool yenn garab yi am na yenn dose yi pesticide yoo koy yoo koy jox nii rek wala loo ci def nii rek mën naa dem ba plante bi ni kon bu fekkente ni si produit tamit ñor na ñu xam nuñ koy defaree tamit euh, ci produit chimique yooyu tamit yooyu tamit am na yenn normes yu ñu ci sukkandiku yoo xamante ni si maanaam doomu aadama ba ko consommé du ci am benn danger waaw la ci des nag daanaka euh, kay ko koy jëfandikoo tamit moo cay indi ak sell indi ci ak indi ci ak ak fag ak fàgg ak fag fàggu gu wér daal ndaxte bokk na ci li li koy aar daal kon sañ xaabaan ba léegi comme kii di wax ni maanaam day dem ci hôpital ñu bindal ko garab yu bare bari nga xam bu ko jëlee yenn saay biir bi day metti di so di ko sonal ndaxte comme loolu dëgg la mën na nekk benn garab wala ñaari garab mais lum ci man di doon daal na jël man que na jël temps fa mu jënde produit mu xool ordonnance bu ñu expliquer posologie bi yépp la ca war bu ko defee mu bañ a def ay erreur euh, de comme au lieu que ñu ni ko kii benn la ci jël mu jaawale ko jël ca ñaar loolu tamit day am des fois parce que garab yi mën na nekk ay cinq six articles ah bu ko defee bon pharmacien bi lay dispensé jëlul temps wala mu jox la noonu rek wala nga xaw a yàkkamti wala dégloo ko wala tamit xañ na sa xel neexul d'après lim la expliqué lépp jàppoo ko nga ñëw jaawale ko loolu lépp mën na nekk <laughs> boo ko naanee sa biir di metti ah, wala mu indi lay yeneen jafe-jafe yeneen intoxication alimentaire yooyu ma doon wax ba léegi eh, intoxication médicamenteuse yi ma doon wax ba léegi maa jégalu wante li nga xamante ni si tamit ñu bàyyi ci xel effet secondaire day am ci wàllu médicament ndaxte effet secondaire ni moo ko mën a waxee daal yenn xeeti njeexital yoo xam ne souhaité wuñ ko ci médicament ndaxte médicament bu ne indication bi li lay traité yenn saa dina am lu mu def ci doomu aadama lu ciy feeñ loo xamante ni si xamit bokk ci muy mel ni biir bi metti ay nausée nit ki di euh, am tendance mais ni luy waaj a wala bopp bi metti ay céphalée yu yëpp tamit euh, des fois dina am comme effet secondaire ci yenn traitement médicamenteux yi wala comme garab yi ni muy baree tamit mën na indi yenn interaction médicamenteuse yi amoon ni garab bi garab yi tamit diggante des fois day ci yenn xeeti euh, famille médicament yi nga xamante ni si waroo leen a jëloon successivement dañ naan la bii boo ko jëlee kat war nga toog deux heures de temps wala au moins benn temps boobu pour mën a jëlaat beneen bi kon donc loolu lépp mën na nekk comme explication mais li nga xamante ni si daal mooy gën à tout moment comme médecin bu ko bindee produit bi mu xool garab yi nañ koy jële mu laaj pharmacien avis bu fekkee am na lenn lu ko ci jaaxal mu explique ko ba mu leer ci boppam mu xam ni mu koy jëlee respecté ko waaw bu fekkente ni seen da koy jël affaire yooyu di persister na retourner ci pharmacien bi wan ko ko wala mu dellu ca médecin traitant ba mu xool bu dee day changer produit bi wala mu xool ban traitement lay jël jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di ziar den jox seen wàccuwaay yéen ñëpp